tey dañu tàmbalee dëkku Sange fa la ñun dëkk dem pour xool la fa nekk ci ndox mi ndax saafara kam déet tabaar fakal la euh, ndoxum Sange saafara nañ ko lu tax Sange parce que Sange mooy dëkk bi gën a yaatu ci commune bi tabaar fakal lu mat juróomi junniy doomu aadama ñu ngi fa dëkk waaye forage Sange gannaaw Sange dafa am yeneen forage yu mu lëkkale yu mel ni jungaan yu mel ni Péléo yu mel ni Mbomboy Ngagaj yu mel ni fii di Sessène yu mel ni dëkk yëpp donc forage boobu moo leen polarisé kon bu ñu ko saafara ba ndox am fa tabarfakal dëkk yi ma wax yëpp dañu am ndox gis ngeen sànq ñoo ànd péréw gis ngeen début bi maanaam ni ndox mi di génne tabarfakal loolu nag lu muy firé rek mooy ne ko def nañu ko waaye nag des na ndax entrepreneur yi ma àndal muy coon am nañ jox nañ ko ren marché bu ma euh, juróom benn fukki millions yoo xam ne uniquement ci wàllu ndox la ndax mel ni Ngombel Euh, connecté na ko mel ni également fii jàmm gën papaak donc liggéey la boo xam ne euh, bu mucc ayib la euh, ñu ngi koy def ci wàll googu sànq également dem nañu fële ca Thiéwo xam nga Thiéwo dafa xaw a féete ci kaw montagne waaye jël naa dogal ne forage boobu nga xam ne visité nañ ko sànq mi forage yu Bati Green bi nekk jotu Thiéwo nañ ko bët indi ko Thiéwo Thiéwo am ndox ñaareel bi mooy bu ñu jógee ci forage ba dëkk bi am ndox câble yi nga xam ne ñoo jógee Ngolfane forage Ngolfane ñëw fii ci Thiéw rek dinañ ko également yaatal ba mu gën dooleel dëkk bi ci wàllu ndox waaye aussi nañ xoolaat aussi naka la ñuy bëtte ab forage pour waa Thiéw kese léegi dinañ dem également fële ca Kër Bara Pël suñu mbokk yi nga xam ne dañu nekk diggante Thiès ak commune bi ñoom dafa am liggéey bu ñu fa tàmbalee waaye ñoom dañ ko war a canaliser ci SDE maanaam SDE moom mooy saytu wàllu ndoxu taax yi donc lolu aussi nañ ko lijjanti ak wa SDE pour que Touba Rappal am ndox bu fa jógee pour Diack xam ngeen dafa nek dëkk bu mag té fan yi dafa am également problème ndox mom magwas waa e ñi nga xamné ñoy saytu forage Notto Ndiosmone Palmarin ñom tamit ànd nañu ak man pour que buñu ñu nat pour Pout Diack ko également ci forage bobu ndax dafa am solution yo xamné moy solution yu yag ndax pour Diack fi may wax yeen forage Notto mako ko jax ndox forage Notto doole bi dafa wàññeeku.

pompe ba fa nekk ndax aussi ndox mi dafa wàcc te nañ ko war a gën a xóotalaat donc façon liggéey yooyu la ñu nekkee euh, mu nekk loo xam ne ñu ngi masawu coono bu baax a baax parce que nga xam ne ñoo am tolof tolofu ndox di gërëm nag sama naataango ba nga xam ne moo say saytu wàllu ndox Serigne Mbaye Thiam ndax tabaarkalla la wax dëgg yàlla bi biñ ko euh, waxee suñu tawat ci wàllu ndox mi jël na waa OFOR ànd ak ñun jox leen ay tegtal gis ngeen tay wa aquatec ñu ngi and ak ñun jël leen yobul leen indi leen ci groupe bi pour que mission bi nga xamne dafa mission ba am solo dafa nek mission pour ñu mëna mais aussi indi ay safara kon lool nekkoon na loo xam ne na ma fàttaliku. wa yaakaar naa tey boo demee woo waa Sange nga ne da nga bëgg def marche pour ndox dafa bëgg doxant li am solo ba am solo moy walu ndox dama ne sànq ci nasaraan new ndox li di courant Manam énergie Li di karangé di sécurité. dafa nek secteur yo xamne warul am xaaj ak sen ku yëngatu ci espace public nga yëngatu ci politique dafa am sujet yo xamne kenn du ko foowee ndax kat ëlëk do xam foy fété dëkk yi wa tabaar la bi ñu ñëw juróom-ñeenti dëkk amon courant légui ëpp na ñeent fukk waye dess na ndax fi juróom ben fukk dëkk ak ñofi nek ak juróom-ñaar kon liggéey bobu ñu ci kondi ci liggéey ak wa Senelec ak wa Azer pour que courant comme ni ko wax ci nasaran wergu yaram ndox kaaraange dafa nekk service yoo xam ne c'est des services universels ku nekk war na ci am.